non pratiquement ñett yi nga wax yëpp euh, euh, nga baalu mënuma ci gëm dara parce que man mi wax ak yow je suis un produit de la marine nationale et de la marine marchande. mënoo cee gëm benn. non mënuma ci gëm benn parce que ñett yi premièrement da nga ne dañ la ne problème mu. technique la hmm. bon problème technique na parce que bateau bi xëyul arrêté parce que problème technique bateau. Euh, bala suy paan du xëy na mun na nekk ci oto wala ci leneen mais am na leneen lu koy firndeel bateau yi léegi c'est tellement sophistiqué et c'est électronique kon su amee par exemple problème réducteur problème barre leneen dina la ko teel a signalé ça c'est des problèmes techniques. te technique sax nag dañ koy defar. technique euh, <clears throat> pour mu ñàkk am bateau chaque année day dem carénage. carénage mooy bateau bi dañuy def daw ba un an ñu ne day dem carénage par exemple quinze jours un mois nag xam na li ngeen koy dégg. Mm-hmm. loolu mooy euh, ce qu'on appelle des préventifs kon dañ koy def avant panne di am kon mënu ma gëm problème xëy noonu nga ne problème technique dafa yomb quoi grand léegi ñuy ñëw ci problème sécurité. Mm. problème sécurité am na mbir mu amul fi Sénégal mu ñëpp xam euh, <laughs> euh, ci affaire politique. ñëw fi pour citer ay tour mais dañu ne problème sécurité moo tax les événements c'est quoi mooy je pense le premier juin mm-hmm. événement yi amoon Casamance ci affaire politique xam ngeen ko mm-hmm. yàlla directement ñu koy naan les événements Sonko donc période boobu la ñu neen problème sécurité pourquoi parce que y a des gens ñi infiltré bateau bi ñu war a infiltré pour nangam nangam mais sécurité <laughs> man mi encore ak yow def naa sécurité ba pare defoon naa nekkoon na amul lu gën a wu bateau bi parce que premièrement que ça soit a Dakar ou à Ziguinchor. il y a la gendarmerie. Hein? à l'entrée nee naa la bato balaa nga ci yéeg au moins au moins dinañ la contrôler au moins laa la wax ah trois ou quatre fois yëpp ci sécurité parce que euh, ci rampe bi balaa nga yéeg de rampe bi. mooy beg boobu. nga yéeg ci kaw yàlla a la sécurité et non seulement dans le bateau bateau bi ci boppam. Mhm. y a la sécurité parce que y la gendarmerie dans le bateau hein y a la police Et il y a des agents de commandement de la marine nationale dans le bateau. Mm le bateau, de, euh, je fais, non, il est doté de moyens sophistiqués pour détecter quelque chose. Mm -hmm. Il y a les radars, il y de surveillance dans le bateau. Mhm. kon sécurité bi foofu suñu ma nee loolu la euh, dina ma jaaxal moo tax ma ne pour ma gëm ko aussi day yomb parce que nga xëy ni nga ne sécurité rek day yomb. des raisons politiques. et des raisons politiques boobu euh, à l'heure bi ma lay wax par exemple. que ça soit au niveau étatique que ça soit l'opposition musuma dégg au niveau de l'état ou bien au niveau de l'opposition kenn ci ñoom wax affaire bateau bi jusqu'à l'heure où je vous parle kon mun ma gëm les raisons politiques même même ñi nga xamante ne sax ñoo dëkk Ziguinchor nekk si gouvernement bi kenn kenn mais musul mais su amoon ñun du ñu coono nii. yéen sollicité sollicité woo leen ñooñu pour ñu jéem a décompte situation wala ñu jéem a xam sax. si si si si y' a des démarches am na ay démarches am. par exemple le collectif des cadres Casamance. Mhm. yàggul le mois de juillet. Mhm. a rencontré moi j' étais absent. dafay rencontré à euh, rencontré le, premier ministre actuel. Mhm. et qui a donné euh, qui a donné son feu vert que il va s'en occuper s'en occuper mooy kan xam naa dina gis. patron am ou bien il rencontrera le ministre de l'économie concerné. D'accord. mais ba léegi y a pas de suite sur ça.